ak cant ñeel président Macky Sall ci jéego yi nga xam ne def na ko ngir suqali secteur huilier yi waaye njàqare ñeel ñi nga xam ne ñoo ci yëngu jamono ji ndax campagne arachidière bu demul dikkul la Ousmane Diakhaté ak waa Rasiat di wax ne daal fi mu toll nii bëgg nañu ci ab fànn waaye njàqare dugg na leen. loolu nag dafa am ay résultats yu am solo yu am ndax ku ne xam na ni senegal demoon nañ ba bàyyi bay gerte ndax 2011. ku ne mu ngi fàttaliku bon impayés yi fi amoon ba xale yëpp jóge ci àll bi jëm ndakaaru ñii di jël gaal président ñëwee nag dekkalaat mbay mi ñëpp gis nañ ni kat mbay am na solo ndax dafa yokk prix au producteur mu nekk deux cent dix muy subventionné usines pour que ñoom ñu mën a jënd gerte gi ci prix boobu loolu dafa tax béykat yi nga xamante ni ñu doon bay gerte kenn jàmbatul woon fii moom Touba ku fi ñëw xam ne nit ñi liggéey la ñu gëm ñàkk jariñu la ñu wax loolu nag yaakaar naa ku ñëw fii muy ni ko Serigne Touba sëñ bu mag bi digale woon fii ñu ngi koy jëfee tax na investissement yi yokk na tax na it ñu dem ba Chine jël fa machine yee nga xamante ni ma nga nee taxaw seede la pour que liggéey bi gën a ñoŋ pour que sunu machine yi ñu renouveler ko pour que capacité yi nga xamante ni moom la am ñu yokk ko ba nga xamante ni nii gerte dootul taxawaalu Sénégal ndax ñun objectif bi ñu am mooy que gerte boo xamante ni nii ñor na Sénégal bu ñëwee Touba ñu nal ko jox ko industrie euh, raffinerie ñu raffiné ko def ko diw ñu consommé ko Sénégal ndax ku ne xam ne ni diw bi ñuy jëlee bitim réew dafa nekk lu mat 200 milliards ci suñu xaalis nekk xaalis boo xam ne tey bu ñu demee Indonésie wala wala feneen day nekk xaalis boo xam ne béykat yooyu lay jariñ ñu ni kat xaalis boobu bu desee ci réew mi. dina yokk lool suñ koŋ-koŋ ndax 200 milliards yi doon dem bitim réew di jëndi diw bu toogee ci réew mi yaakaar naa dina suqali suñu suñu koŋ loolu mooy suñu objectif ah objectif boobu nag ku ne xam na ne ren mi ngi jëm ci naax saay ndax wax dëgg fa yàlla ku gis ren campagne bi ni mu demee xam ni jaaxle am na jaaxle mënul weesu nag matière première bi nga xamante ne nii moom nga yaakaar pour tourner say usine mënatoo koo gis wala boo ko gisee la nga koy jëndee boo ko defee diw diw doo ko jaay loolu moo waral tey ñu ni kat foog ñu wax ak réew mi foog ñu wax ak njiitu réew mi wax ni ko sant nan la waaye jaaxle nan ab ndaje ñu ko doon amal ci tuba héliport Ousmane Diakhaté ak waa Rasiat di sàkku ci président Macky Sall mu jëli dogal ndaxte chinois yi bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy gàllankoor secteur boobee. ndax chinois bi nga xamante ne ni moom mooy jënd gerte gi li ko ci neex mooy bu ko yóbboo foofu day liggéeyloo ay waa réewam yaakaar naa nag. duñ seetaan ñuy yóbbu loo xam ne day day suqali waa Chine di ñu toroxal ñun waa senegal ndax Chine googu nga rek wax dëgg fa yàlla ku fa demoon bu faa jëlee doomu gerte duñ la ci bàyyi. Mali gi ku fa demoon bu faa jëlee coton wala dara yoo xamante ni seen usine daf ciy daw duñ la ci bàyyi. kon dañuy ñaan waa Sénégal nguuru Sénégal nga xam ne ku ne xam ne yërmande bi na am ci suñuy ci waa réew mi ñu xam ni gerte googu dañ dañ koo soxla soxla bi nag weesuwut ñu liggéey ko comme ni koy waxee comme ni ko ñu ma jiitu waxee def ko diw. ak euh, ak raakal bu ko defee raakal boobu sax dafa am solo gerte bi nga xamante ne nii ñu ngi koy jël di ko yóbbu Chine ku jàng PSE doo ko ci gis amul fenn fi nga xamante ne nii ci programme président mag Sall dañ cee wax ni gerte gi dañ ko war a exporter Chine pour que mbay mi dox ku lire programme Macky Sall lire pro programme bi bi ñu ko falee 2012 lire le PSE di nga gis ni ñoom li ñu sox li leen soxal ci ci mbay mi moo que ni gerte gi ak lépp lu fiy ñore ñu transformé ko waaye exporté ko moom waxul ko fenn. gerte gi nga xamante ni ñu ngi koy yóbbu dafa nekk gerte goo xamante ni ay ndaw dañ ci doon liggéey ci xolli bi ci nal bi ci njaayam ndiw mi ci njaayam rakkal mi ci transport bi ci yenu bi loolu du suñ ko yóbboo liggéey boobu yëpp dañ koy yóbbu ndax chinois bi nga xamante ni dafay yóbbu gerte bu àggee réewam dañ koy subventionné ndax dañuy xam ni gerte gi ab liggéey la liggéey boobu nag dañu koo xañ pour jox ko chinois yi. ma dama campagne amu fi parce que amuñu gerte ndax gerte gi nga xamante ne nii dañ ko waroon a liggéey ñu ngi koy yóbbu Chine donc ren campagne bi ñun gisuñ ci suñu bopp loolu nag moo tax ñuy woote wàllu ndax gerte gi nga dañ ko liggéey bu ko Chine liggéey du day metti lool ci liggéey bi nga ci yi ak ñun ñi nga investir bëggoon cee am dara. xam nga daaw ba léegi dañuy liggéey ci benn plateforme boobaag léegi lu ma 139 mille tonnes dugg na Touba ñu nal ko def ko diw jox ko Sonacos Sonacos def ko diw niinal di ko jaay ci marché bi ren dara amagut ren dafa taxaw. dara dañoo amagut mënuñoo am sax doomu gerte suñu usine mi ngi nii taxaw ma ngeen dem jël leen seen i photo usine boobu man di demit kenn liggéeyul loolu moo am ren. 20 000 personnes ñaar fukki junni nit yoo xamante ne ni nii ñu ngi doon liggéey te bu nga xamante ne dañoo yóbbu gerte gi Chine ñooñu dañuy nekk ci mbedd bi di taxawaalu wala ñu dem Ndakaaru di ko xatal. wala ñu jël gaal yi te ci yàlla àgg foofu. Rasiat di kuréel gu nga xam ne dafa dajale ñiy yëngu ci wàllum diwlin bi ay usines yu bëree bari seexu ko ci digdigal bii di Touba ñoom ñëpp nuyu xaar président Macky Sall mu ñëw te xettali leen.